borom Touba nee na man daal xaw ma lu ko gën fii xaw ma lu ko gën fële gis nga Chérif bu ñu bëggee jàmm ji sax nañu moytandiku yonent bi sallallahu alayhi bi mu naan wala taxaasadu moytandiku leen iñaanante réew mi dégg naa fi baat boo xam ne daal neexu neexuma manuma ci dara nag Ibrahima Ndiaye xam nga baat bi may dégg ci réew mi te ma ban la mooy ñu ni Sénégal bëgguñu ku baax réew mu Sëriñ Tuubaa ne di defar ñu baax naa Limaamu ne fi di defar ñu baax Seydina Aliou Malick ne di defar ñu baax Seydina ah, Cheikh Ibrahima Niass di defar ñu ma mag ñi fi ne ñépp daal li leen taxoon a jóg mooy ubbi ay centre di defar ñu baax ñu taxaw léegi ni Sénégal bëgguñu ko baax bëgguñu kuy dem boo waxee ñun la doo dem dama def benn waxtaan benn jigéen romma tafsir gay yaa wax lii yow de doo dem ma ne ko man maay dem dëgg man dem naa ba ñëw nii fa laa jóge nii damay delluwaat boo ñëwal ma yóbbaale la yow mi toog fi yaarul dem de man falaa jóge waxin la xam nga lan laa ci jublu mooy jéggal baat boobu bëgguñu ko dem xam nga lu tax mooy Sénégal mën nañ la jàppale mën nañ la jàppale di la jàppale di la tette ngay jàng dox waaye saa boo taxawee rek ñi ëpp léegi li ñuy def mooy gor say tànk te boo leen laajee lan la kat dañ naan léegi dafa soos yow avant may am programme di def dara ñoo daan naanandoo attaaya di lekkandoo bool dof léegi semaine bi lu mu néew néew néew néew dinaa ci ronu juróomi tànt est-ce que mën nga di ma gis toujours da ngay ñëw ñuy ànd fa ma doon dem mais mënatuma toog ndax lii laa doon ñaan yàlla weer wu jot benn conférence laa daan am léegi weer wu jot lu mu néew néew néew dinaa ci am fukki conférence ak juróom waa léegi fi ñu doon daje mën nañ faa daje ba tey mais lan la ñuy wax mooy léegi dafa soof chérif a ngi nii li lay may jàmm mooy fay sa téléphone yenn heure yi am na téléphone boo ko dul fay bëgg ko la woo nga wuyu ko waxuma problème ay jàng ak yooyu sa baatay yàqu wax naa ko sama mag alxaaji Idrissa Gay dafa baax téléphone am heure yëpp du ko fay kooru daaw nag yàlla dogal nag mu feebar ñu hospitalisé ko eh, eh, eh. ma ne ko gis nga sawaay problème yi nga bëgg a régler ba doo fay sa téléphone gis nga boo fi deewee ñii dañuy continuer seen dox ma ne ko ana diw ñu mu xam ma ne ko dañ daan rek at du dee nañ ma ne ko déggati nga ñu tudd leen mu ne ma déedéet ma ne ko del fay sa téléphone boo conférencier ba pare fayal sa téléphone noppal sa baat ma ne ko gis nga problème bii nga am nii xam nga lan la mooy wax ju bari sa baat bi dafa irrité te boo dul fay sa téléphone du sotti ñii naan la bul fay téléphone kilifa du fay téléphone seen intérêt dong la waaye boo ko fayee ñaari minute ñu ni léegi kenn mënatu koo jot te iñaan la wala taxaasalu nit pour ànd bi mën a ne jàmm ji sax faw ñuy comprendre Chérif Ibrahima yàlla dogal na macha allah maag moom ñu doon ay waay heure bu ma ko fëggee mu ubbil ma mais Chérif Ibrahima bu nekkee ci jamonoy préparation ziyaara Louga bu ca Thierno Bachirou Tall faaw nangu ni dinaa ko fëgg te du ubbi wala taxaasadu bu leen iñaanante baal ma gis nga li ko tax a tardé wóor na ma ni ci loolu la Cerno Bachir Tall euh, xalifa euh, famille Omariya jël léppam teg ko ci loxoom samedi di xewam lépp mu yore ko moom Chérif mais di jël ay kaar fii waa Géejawa yépp xam nañ ko escorte dar ko ba Louga mais xam ngeen ni kooku heure bi mu ñëwoon daaw jéeg ñëw ko daaw du ko mën a ñëw rek waaye yéen nag dawal ngeen compréhension mais li ma bëgg a jàngale rek mooy xool leen iñaanante gi ci réew gi wala tabaaxadu nabi ne bu leen di bañante léeg-léeg nit ki def leen li xam nga lu ko waral mooy yar mbañeel ci nit ba mu màgg billaahi wallaahi tallaahi sosuma ko maa ngi koy wax bi benn waaye def ma gis léegi bu may nuyu day jooy ndeysaan ndax cofeel gu mu am ci ñun mu ne ma yow laa gënoon a bañ ci àdduna bi billaahi noonu la ma ko waxe ku sincère mu ni ma am na benn moment moom bu ñu daje woon dama lay rey mu ni ma mais léegi bi ma lay gën di kii ci laa xam ban genre nga moo tax bu ma lay xool sax duma ko mën a dékku mun ko waa lu ma la def ba nga bañ ma mu ni ma non benn problème laa amoon quoi sama jabar laa mere woon parce que bu lay seetaan day jooy waaw loolu ci sama yoon yow sa jabar bu may seetaan day jooy doo ko nax mais nga bañ ma ci ba nar maa rey mais lan la doo xam lan la doo xam lan la diw rek laa bañ diw neexuma te diw moom a kat defoo la dara wala tabaaxadu nabi ne salaay salaam waay waay bu jàmm gi sax bu leen bañante gis nga mbañeel saa bu lay dugg ci nit rek dawal parce que bu la duggee nga bàyyi ko ci toujours da ngay seetlu te booy seetlu ci moom loo ko gën a bañee ngay gis ndax loo seet ci nit moom ngay gis wala tadaabaru mani pour jàmm ji am nañu moytandiku xuloo tant baa ngi nii sang bi nee na jullit amul droit an yahjura axaahu fawqa salaasin nit ki amul droit xuloo ak mbokkum jullitam lu ëpp ñetti fan am na fi ñoo xamante ni ba ñu xuloowee ak léegi ëpp na at da ngay dégg nit ku taxaw ko mu bokkal ndey ak baay ni la bu ma deewee bul ma tiim bu laal sama jaat yàlla bu ma la gis àllaaxira yàlla buñ fa gisante maa la baax te rasulillahi li may wax du ay sos de ndax ñemewu ma koo sosal nabi ne salaay salaam yàlla nee na lu ma ko ñaan dina ma ko may waaye ñett yii yàlla nee na du leen jéggal mukk ñu ne ko yaa rasulallahi kan la mu ne même guddig laylatul qadri bu yàlla di ñoo ñu dañuy teg seeni dossier kenn du leen baal ñu ne kan ak kan mu ne mudminul xamri ki nga xam ne day trafiqué dorog ñu ne ak kan mu ne aqul li koo xamante ni dafa tongoo ak ñaari way juram ba ñu ne ak kan mu ne ak ñaari julit yoo xam ne dañoo xuloolu wëpp ñetti fan wa kunu ibadallahi ixwaana nañu doon ay mbokk bëggante soppante te yàlla tax maa ngi ñëw maa ngi ñëw ñu dellu siwaat ci lan mooy tax jàmm ji sax lii mooy yàq jàmm ji lan mooy saxal jàmm ji ma ñëw ci rasulillahi nabi nee na sallallahu alayhi wa sallam al muminu lil mumini kal bunyaani yasuddu baaduhu baada jullit daal ak mbokkum jullitam ñu ne ah ya rasulallah mu ne dañoo war a mel ni tabax miir bii brique bi moo dëgëral bële bële dëgëral bële ñu raax ko lépp ànd benn brique bu yànq rek beneen ba yànq mooy jullit yi noonu la war a jàppe dañu war a seereente jullit bu ne di dëgëral sa mbokkum jullit di ko dimbali jàppalante gis nga boo nekkee ci koñ te doo jàppale kenn kenn du la bëgg mais boo nekkee ci koñ koo tane dimbali ko day waral mu sopp la te soppante bu amee rek jàmm am dinaay faral di wax ni ñett yi yàlla du ko teg kenn ku mu dal yaa ko teg sa bopp benn bi mooy nekk ci koñ te ku am problème du la seet si da nga fee yàgg te doo foj problème ñaareel bi mooy ne ci koñ te boo tukkee kenn du la namm dangaa lakkale ñetteel bi mooy nekk ci koñ te lu réer ñu ni seet leen diw ba xam jaaroon na fi dangaa yàgg jël loo moomul jullit ak mbokkum jullitam nabi sallallahu alayhi wa nee na kal jasadil waaxid ida staka minhu udwun tadaa lahu sairul jasadi bi sawi wal ima rasulillahi nee na pour jàmm ji sax nag jullit ak mbokkum jullitam xam ngeen nu ñuy def ñu ni ah mu ne dañu war a mel ni jénn jëmm saala bu fekkente ni sama jëmm ji ame naa ame naa loxo lu ci yoonu gémmiñ dootu lekk bët du nelaw day dem ba doo toog sax sa loxo buy metti bala nga koo xam guddi jot doo tëdd doo toog da ngay jaabante rek sa bëñ buy metti noonu mooy lan laa bëgg a wax mooy jullit yi saa ab jullit amee jàmm na ñépp feetu wane ni tey dañoo bég ndax suñu bokkum jullit dafa am jàmm saa bu ab jullit amee tolof tolof na ñëpp triste pour wane ni tey suñu mbokkum jullit dafa am jafe-jafe xoolal ma joxe ci misaal mi gën a gàtt xoolal léeg-léeg nit dina ab ñaari kër dinañu tàggoo dootuñu am jàmm xam nga lu koy waral mooy kër gii day am ngénte ñu ne ginnaaw suba la ngénte li kër gii am ko dee waa kër ga gale daan ne suñu ngénte dara du ko yàq ngénte la jot ñu sabaru kër gi am dëj bis booba la ñuy bàyyi kër ga gële ba abadan parce que naqar saa bu ñëwee bu ko ñëpp bokkee rek jàmm kon jàmm mii ñuy waxtaane ñun ñoo koy suuxat ma ni gars yi élection yi bu ñu waxee jàmm rek xel yépp dem ci mais jàmm du pour élection rek déedéet xam nga jàmm pour abadan la nee naa leen borom Tuubaa nee na jàmm gisuma lu ko gën fii gisuma lu ko gën fële jàmm bu ñu duggee biir aljana xoolal yàlla nee na daawaahum fiya subhanaka allahuma wa tahiyatuhum fiya salaam biir aljana bu ñuy nuyoonte jàmm la ñuy wax yàlla nee na pour wan ni jàmm gën lépp bu ñu duggee aljana wa nadaana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururin mutaqabilina bu ñu duggee aljana ñun ñëpp la ñuy opéré lu ñuy dindi ci ñun mooy ak soxar kenn dootul soxare kenn ku ne da bëgg sa morom ñun ñëpp yonentu jàmm bi la ñuy dëkkal sayyidina muhammad huwa akmalul wara xalxal xam naa du yàgg ndax damay conférence gàmmuuma waaye daal may ma ci rek tuuti rek ñetti minute seetal ma keneen ñetti minute keneen ñetti minute keneen ñetti minute muy douze ma jox micro bi Chérif Ibrahima mu def synthèse ñu ñaan ñaan yàlla fekke déwén wa akmalul wara xalxal xoolal xoolal yonentu jàmm bi sallallahu alayhi wa sallam ma ni boo bëggee jàmm ba pare ni man du ma tooñ waaye ku ma tooñ ma fayu jàmm du am baal ma ma nettali la la dara ma nettali ah rasulillahi salaay salaam dafa dem Taif waa Taif xaañ ko lu ne ñu def ko ko sang bi génn coono bi bari lool Zeyd ibnu Xaarisa di ko garde mu tàllal loxo yi yàlla allahumma ilayka ashku dufa quwati wa qillata xiilati wa hawaani ala annaasi ya arhama arrahimin wa anta rabbul mustadafin ila man takillu nii ila aduwin baidin yatajahamu nii am ila sadiqin qaribin mallaktahu amri kera sonn na in lam takun gadbanan alayya fala ubali gayra anna afiyataka awsau li wa audu bi nuuri wajhika alladi adaat lahu alsamawat wa ashraqat lahu alzulumat wa salwa alayhi amru aldunya walaxira an yanzila bi gadabuka aw yaxilla bi saxatuka laka alxutba xata tarda laka alxutba xata tarda laka alxutba xata tarda wala xawla wala quwata quwwata illa bika ya aliyu ya azim jibril ni cëpp ni ko yàlla ne yow rek la doon déglu jox na ñaari montagne yi ndigal boo leen waxee ñu dal ci kaw ñi la teg coono bii nga nekke nabi ni jibril neel yàlla ñaanuma ko pour mu alak leen dama ko ñaan rek pour mu may ma jàmm déggoo li ma ko wax ci ñaan gi dama ko ni lii ñu ma def yépp bu fekkee ni moom yàlla merewu ma rek mën naa ko dékku deret ji di siit jibril ni ko suñu borom nee na bu deret ji laalee mu def tremblement sang bi di kar deret ji ci loxo bi di ko mar naan ko baaraam buy naat ci jarul tremblement yàlla baal leen dañ maa xamul allahuma igfir li qawmi fa innahum laa yaalamuuna yàlla baalal sama nit ñi dañ maa xamul même bu ñu ma gëmul ñu juri doom ju ma gëm bu ëllëgee ay waa yàlla jéggal leen sallallahu alayhi wa sallam loola waral Serigne Touba bi ma xoolee nag fi waa ji jaar wahuwa xam naa ni moom daal sama sang bi akmalul waraa moo gën a mat ci mbindeef yi xalxan ci bind moom rasulillahi Sëriñ Bamba nee na wa xuluqan zara tant bi te bëgg sayyiduna Muhammad da ngay nuyu ki nga dendal ni ko baal ma ak baal naa la huwa akmalul wara xalqan joxante leen loxo yi baaloonte leen ak ni yal na yàlla boole ñu baal huwa akmalul wara xalqan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah huwa akmalul wara xalqan baayu Serigne Saliou maami Serigne Khadim Mbacké maami Cheikh Abdou Karim Mbàkke borom makaarimul axlaaxi ne wa akmalul wara xalxal doomi mam jaara jag mam Mor Anta Sali yaakaari Cheikh Ibrahima Fall baabul muridina wal muridaati ne wa akmalul wara xalxal ci sant Mbàkke sanc Mbàkke borom Tuuba xayrul xadim bàyyi basak baara bàyyi Sëriñ Saalihu ne wa akmalul wara xalxal demal lu yàlla bind lu ne moo ci gën a mat bind moom rasulillah زهراء سن بابا نينا نمو لين جنة بند نون لين جنة جكو موم رسول الله والمسخة لم يرى sëñ Bamba nee na ku mel ni sama waa ji rasulillahi kenn mësu koo gis. wala li yuraa fi chiyami. Xaadimu Rasul nee na kenn dootul gis ku rafete ni ci koni baayu Fatima. wallazi faasi wa. Xaadimu Rasul nee na sama waa ji kawe na ku dul moom. minal baraaya bi huda. Xaadimu Rasul nee na moo gën a jub ku dul moom moom rasulillahi. xatta bada kat bu suma. boo demee leer na ni bind nañu turu sayyidina Muhammadu. fi arshikal muazzami. alako yàlla ga nga xamee ni fa la yàlla nekk bind nañ ca muhammadu rasulillah wa fil jinaani wa suxoor inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazalu alayhim almalaika alla taxaafu wala taxdanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun nahnu awliyaukum fi lxayati addunya wa fi laxira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma وما تتبعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وفي الجنان وسحور boo demee ajjanay firdawsi ñu nga ca bind muhammadu rasulillah wa fi wujaadi wa suhoor boo demee ajjanay jannatu naimi ñu nga ca bind muhammadu rasulillah wa bi rimaaxi wa suyoor boo demee ajjana ja ñuy wax daaru salaam ñu nga ca bind muhammadu rasulillah xalaa kulla sanami yal nañu fekke déwén <laughs> da nga xalaat Adama Adama bu amee jàmm sayyidina Muhammad tawaral Adama am jàmm ya baza zaka nabiyul akram وحده فقال يا بني فقال يا معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين نوين وأمي جاب سيدنا محمد كبر يا حفظة ذاك النبي الأكرم شيخنا شيخ سعد بن نينا سمم maama yonent bu tedd bi moom rasulillahi ma mislu minal wara muxaddamo cheikh na cheikh saat bu nee na amul mindeef mu jiitu sama maam ya basa zaka imamu ratibo bu yowmal xiyaame bu yàlla fasee kanam nga fas yéene defanteeg jaam yi moom borom bi ya basa zaka imamu ratibo ilal karimu tahalla المنتقم يا حفظ ذاك إمام راتب جهنم ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين سام مانغا سكر مام شيخ الحاج مالك nag borom parasol ba nee na rasulillahi muhammadin xayri mabuusin xawa sharafan ku bëgg yonent bi fekkal saam fa mu nekk wan ko ñu ko yaa bëgg rasulillahi muhammadin xayri mabuusin xawa sharafan saam yal na yàlla sàmm la ci barke sayyidina muhammadu muhammadin xayri mabuusin xawa sharafan doomi maam Fawad wele jeg maam Ousmane baayu Serigne Babacar baayu Alaaji Mansour baayu Alaaji Abdoul Aziz baayu Alaaji Habib ne Muhammadin xayri mabuusin hawa sharafan maaga ca Muhammadin xayri mabuusin hawa sharafan Muhammadin xayri mabuusin hawa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 muhammadin muhammadin xayri mabuusin hawa sharafan maam alaaji Malick nee na lu yàlla yónni sayyidina muhammad te ca gën hawa sharafan moo làq tedd nga moom rasulillahi bil ilahi sa maam seydi aaji Malick nee na buntu yàlla sayyidina muhammad la limaadil xalqi wal aati sa maam seydi aaji Malick nee na ñi paase ak ñi ñëw seen buntu bi jëm ci yàlla rasulillahi wa arada duxulan alaaji Malick nee na ku bëgg a tàbbi ci kër yàlla anhu inna lahu ba pare ni doo jaar ci rasulillahi aji nekk la ñeel ko sarfan danañu la wàññi wa tardan danañu la dàq ila stiblil bahimaati danañu la dàq jëme la ca mbortu bàyyi ma huwa rasul alladi maam Seydi Hadji Malick nee na sama waa ji moom la yàlla yónni mooy ki nga xamee ni Ahmad risalatu ak yónnentam matale na moom rasulillahi kullanaami mboolem mbindee fii la yàlla yónni sayyidina Muhammadu bila shakkin amul sikki sàkka waribaati amul def def le wallahu shaqalaha maam Alaaji Malick nee na yàlla xaral na rasulillahi min ismihi karaman alaaji malik nee na ci aw turam la yàlla jële ngir teral rasulillahi isman waxad xasaho waay waay yàlla jagleel na baayu fatima sa xayru mahabba mbëggeel gi gën ci mbëggeel yi qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurun rahim qul atii'u allaha wa rasula fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin alaaji Malick ne mbëggeel gi gën ci mbëggeel yi baayu Fatima la ko yàlla jagleel min ismihi min ismihi min ismihi xalifa Serigne Babacar borom bone kaare beeg sàkkale yàlla bi dugg na ci géew bi sii di loo wax jamiul anbiyaay nga ni Cheikh Al Khalifa borom bone kaare ba doomi maam Roqaye Njaay jàng maam Alaaji Malik Mansour dollil siidi جميع الأنبياء وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم ختمه جميع الأنبياء góor ga nee na nabi yonent yi ko jiitu ci àdduna wa ruslu fi ridaaka al-abqiyaa yi yàlla yónnee ko jiitu waaye ngaramam la ñuy wut moom rasulillahi cheikh al xalifa nee na nabi nga yéeg moom rasulillahi فرج من طباق mu ngay romb asamaan ya moom sayyiduna Muhammadu wa yaruju ila al-afaq mu ngay def gox ya mu ngay romb asamaan yi juróom-ñaar romb na diina diiqa raqiya fayluun taftaab samsaax isxaqa ilu baayu Fatima ngay yëg di wuy ji boroomam ala badril budur salli ala badril budur salli ala badril budur ku ne ci tànt bi maa ngi jaan nga jóg taxaw màggal sayyidina Muhammadu yàlla fa sa aajo badril budur Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh doomi maam Sofeetu Ñang jaag maam Alaaji Malik ne salli ala badril budur yal na yàlla dolli xéewal ci weeru weer yi mooy Ahmad mooy balluwaayu yiw yi munqidina min ashurur alaaji Abdul Aziz Dabakh nee na sayyidina Muhammad moo ñuy xettali ci ay wa xalaqil wa humami moo ñuy xettali ci mbugal yeeg mbir yi salli alal muwaqqari ay waay yàlla dollil xéewal ci ki nga xam ni ku ñu weg la Ahmad Ali nasabi ahmad mi nga xamee ni mooy ku leer ci askan moom rasulillahi ahmada naafil kurabi ahmad mi nga xam ni mooy ki dàq njàqare moom rasulillahi ni kulli riyabi ay mbaay dégguma la waxaat ko waay ni kulli riyabi mooy xettali bépp aji jàq moom rasulillahi bil xuluqil muhaddabi mooy borom jikko yu màgg ya moom sayyidina Muhammadu habibinal mufaxxami alaaji Abdul Aziz Dabakh nee na mooy suñu soppe bu ñu pam bu ñu màggal bi moom rasulillahi salli salaatan ya qarib maam Abdou nee na yàlla yow mu jege mi yàlla na nga dolli xéewal ak jàmm yow yàlla ala nabiyikal habib ci sa yonent bi nga xam ni mooy sa soppe bi yow yàlla ko ay xayri baidin wa qarib mooy ngën ji ko sori waaye mooy ngën ji ko jege moom rasulillahi sali salatan umri waay waay yàlla yàlla na nga dolli xéewal yow yàlla sama dundu alal mudaffiri nga xam ne yàlla nga ko naan yaa ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahir wa rijza fahjur wa laa tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir fa idaa nuqira fi naaxuur sam demal ma kër xaadimu rasul lu mu wax sayyidina muhammadu laa ilaaha illallaah bàyyi sëriñ Saaliw bàyyi si Abdul Ahad bàyyi si Abdu Xaadar bàyyi sëriñ Fàllu maami sëñ Mbàkke soxna loo maxaamaatu xayril xalqi an xayri rabbi muxayyabatun fal taqra an suuratan najmi góor gi sant Mbàkke sant Mbàkke bàyyi ba sag baaraan sëriñ ñëpp cer na ndaamal daaru loxo ca kaw nu màggal maam borom Tuuba masaaya ka yaa kulli man kawnu li yabiin alal kitaabil mustabiin yaakaari Cheikh Issa Diène borom Diène nekk la gan maami sëñ Abdou Karim Mbacké borom makaarimul axlaaq masayaaka masayaaka masayaaka masayaaka masayaaka masayaaka masayaaka yaa kulli. sëñ Bamba nee na ko yaay sama lépp yow rasulillahi. la dal kullu xat jàllat. yaay sama lépp. fépp yow sayyiduna Muhammad walakinaha jallat waaye daal say ngëneel màgg na yow rasulillahi an ash-shi'r wa an-nazmi màgg naa laa way waaye kenn mënu laa way kenn mënu laa wesaar xamaatu xayril xalqi sëñ Bamba nee na dégg leen garaatu sayyiduna Muhammad ma wax leen ko xamaatu xayril xalqi garaatu ki gën ci mbindeef yi baayu Fatima ak Roqaya maamu Cheikh Abdou Khadir Jeylaani an xayri rabbihi ku dul yàlla mi nga xamee ni mooy boroomam suratun aji fàttu la ko dul yàlla xamoo ko fal taqra an suratan najmi sëñ Bamba nee na boo ko bëggee xam jàngal suratu wan najmi ida hawa muhammadun al muxtaar ah, ah, ah, la xalqa la xalqa la xalqa la xalqa bi alaaji malik aliyu suufiyu taqiyu doomi maam fawad wele jeg maam usman alaaji malik nee na huwal irniinu huwal irniinu irniinul baraya sangu mindeef yi sayyidina muhammad la sabihul waji dul xulqin bayuni borom kanam gu leer gi borom jikko ju rafet ji sayyidina muhammad la ji dal ji a Muhammad la bis ba nga xam ni borom bakkaar borom bakkaar yaa ngay katti katti moom du ko yéem du koy ñaax saa muyul wa miftaaxun bokkule mooy lamp bi mooy caabi ji mooy bi moom rasulillahi aji tabe la moom sayyiduna Muhammad ku yàlla tànn la moom rasulillahi mooy sangu sang yi moom rasulillahi ku ñu deeyoon la moom sayyidina Muhammad ku yàlla gërëm la moom rasulillahi ku yàlla gindi la moom rasulillahi aji bégle la moom rasulillahi walaysa ala al-mughayyab bi-dhanini Cheikh El Hadj Malick nee na sama waa ji kenn du ko jam ci kumpa moom rasulillahi wa aynul haqqi aynan qad nahana ki gën a tedd ci mbindeef yi xat na ana tere nañu ay nan riba yubahitu man ataahu min al uyuni samaam Seydi Aji Malik nee na sayyiduna Muhammad yubahitu daan na wedam loo man ataahu ku ko indil min al uyuni ci ay may yow sëriñ Sambi اختصت حليمتنا بدون مين بالما بالما بالما بالما

يممت يممت رسول الله باي شيخ احمد تيجان نياس يالا بوكو نياكاتي بايو بابا لامين نياس ني يممت جبلنا مو باي فو جبلو من رسول الله يممت رسول الله باينا نيب باينا فيب كين رك لا دكمل تا سي موم لا جيم te dinaa àgg ñu ne bàyyi ko kan la mu ne rasulullahi sayyiduna muhammadu tahal muqaddasa kera ba ko yàllay neexal mu julli ba tànk yay neew yi moom nabi kera ba mu jullee ba tànk ba neew yi yàlla boo ci barke bàyyi kera la ko yàllay neexal naan taaha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى يلا بوكو نكتي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى بين طه ما جمت طه المقدسة كدك نسلل عن النبض والأضداد أصلا مؤسسة بين تمي جمت muy sayyiduna muhammad yàllaa ko sellal ci mboolem safaani yàllaa ko sellal ci kumu nurool ku la xool ni la da ngay nuroog rasulillahi dalay nax baayu fatima nuroo wala kenn kenn la ci yàlla bind sayyiduna muhammad la mu nga tëdd medinatul munawwara rasulun ya ayyuha rasulu laa yuxdinka alladina yusaariuuna fi lkufri min alladina qaalu amanna بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم رسول ku yàlla yónni la moom rasulillah wa aslu naasi maawun wa jandalun ba yàllay bind sayidina Muhammad bàyyi wa aslu naasi cosaanal doomu aadama muy maam aadama maa un ndox la wa jandalun ak ban fala insa fi daaka zamani mu annisa yàlla nañ fekke déwén yéen ñaar yéen a ma yóbbu ci lii lépp mbokk yi baal leen ma rek saam ma def benn synthèse bu ndaw ma ni màkk ña saala biige baal ma rek ñu joxe kàddu gi ma def benn synthèse bu ndaw saay noo tudd ah yaay Modou Mbaye ah allah <laughs> Modou Modou bàyyi ñu am maa ngi maa ngi daaneel kàddu bi non Modou nandite la mbokk yi nañu dellu si waat nañu dellu si waat mani ma ñëw ah ñu ngi doon waxtaane jàmm jàmm ji ñuy waxtaane pour tëj diine lislaam li ma déparé sama waxtaan moom laa koy tëje mooy diiney jàmm gars yi élection yaa ngi ñëw wax naa ko ker gàmmu Chérif Ibrahima ma ni leen ñetti carte lañu am ñetti carte ma ni ñetti carte la am benn carte bi mooy suñu làmmiñ nañu ko téye pour ñu am jàmm bari waa na ko wax dara tey jii gaa yi jaarale la ci yoon bu démb doon tey doo ko waxaat kon nañu téye làmmiñ yi pour am jàmm ñaareelu carte bi mooy xob bi ñuy jël mbooleem ñiy joŋante ñu tànn ca kañu doy dugal ko ca urne ba kooku ku ne seetal kala doy nga def ko te dem ñibbi ñetteelu carte bi mooy suñu xol yi suñu xol yi kuñ ko jox ku du rasulillahi rek yàq nañu ko baal leen ma gaa yi di xëccoo réew mi koo ci jox sa xol ba mu jaral la dee da ngay dee bañ lay saraxal sa suuru sarax ñoom ñaar ñu juboo ànd doon benn kon xol yi nañu ko jox sayiduna muhammad làmmiñ yi ñu téye ko pour ñu mucc carte ba jëm ca urne ba ñu seet kañu doy ñu sànnil ko ko yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci mbooloo mi ñu ngi jéggalu Chérif Ibrahima bu baax xam nga saam ak siidi li ñuy daje ak man bariwul fii rek defe naa ni ak jag saaw xanaa moo tax bu ñu dajee rek fa tabaarakallaahu maa ngi jéggaluwaat bu baax bànda banda seen suñu rakk la ñoom fokk léeg lekk man damay am sañ-sañu ndax man dama yor daara bi may yor daara 93 ba tey li ma xam mooy toogal nga toog noppil nga noppi dama ko tàmm du ko sax tey buy jëw rek du ma ko tey waaye banda xale bu yaru la ñooy magam di kilifaam waaye mënoon naa ko ni noppil mu bañ a noppi kon it du ma ko mënal dara ndax du ko dóor baama ni ko toogal mu ni ma toogu ma kon duma ci mën dara kon nag boo ko nee toogal boo ko nee noppil mu noppi nga ni ko toogal mu toog ba pare ngay wax mu di la sarax kooku jàngale na xale bu baax la buur xale yi réew mi yépp melee nii fa tabaarakallaahu réew mi dem yoonam banda yal na la yàlla sàmm maak moom macha allahu spécial korité yóbbu naa ko Rosso Sénégal spécial korité bu ndar yóbbu naa ko fa fa tabaarakallaahu ñu ngi waroon a daje dem Italie programme waaye jotaay bi sànq lool rek la laajoon jotaay bi sànq bu ma ko deful woon noonu rek mu yàqu te nag bu ma koy def ci ki ma gën a jege laa koy jaarale moo tax ma jaar ko ci moom banda yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla suturaal ni nga ñu suturaale yàlla sàmm mbokk yi nañu xam ni ñun conférence dañ ciy jaamu yàlla conférence bu nar a yàqu man daf may jaral léeg-léeg jooy damay bëgg a jooy parce que mbirum lislaam laa bëggul ku koy fowe di ma ci tudd billaahi bu ma demee ba ni dut laay yi man baax na ci man de gënu ko neex ci kaw suuf réew ëpp ko jàmm waaye ay làmmiñ ñi ay làmmiñu sénégalais ah buñ ko daggul it waroon nañ koo wàññi ci cat li tuuti muuma yi sax dañ bari wax ñu baal ma àq muuma yi sax dañu wax rek ñu baal ma àq xam nga kooku bu ma noon wax ah àddina tukki wallahi wax rek wax rek billaay bu wàññi woon wax ji bu ñu wax ji wax sax kenn terewu ko waaye wax lu am njëriñ te ñu dégg li yàlla wax laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa kalladi yunfiqu maalahu riaa annaasi wala yuminu billahi wala bil yawmil axir lu mu ca teg fa masaluhu ka masali safwaanin alayhi turaabun fa asaabaha waabilun fa tarakaha saldan laa yaqdiru ala cheyin mimma kasab wallahu laa yahdi alqawma alkaafirin wax boobu ñun ñépp waroon nañ ci jàng yàlla ne bu leen yàq seen jëf yi jëf yi ngeen di jëf muy lu mel ni sarax muy lu mel ni jëf ju rafet yàlla ne bu leen ko yàq ci jël seen làmmiñ teg ca mu ne mu ngi mel ni ku dem ba ci àll bi nga fekk benn montagne bu ratax nga sotti suuf ca kaw montagne ba tawu waame ñëw fekk ko fa ak ngelaw lu am doole mu ne ndax dara dina des ci montagne ba ñu ne ko déedéet mu ne wax ba noppi teg ca sa làmmiñ noonu nga koy perte fa tarakahu saldan kon beneen bi mu ne qawlun maaruf wa magfiratun xayrun min sadaqatin yatba'uha adan mag ñi daan ko firee ne sikki ma lakkandoo moo gënal yàlla million boo teg ci loxol borom ba noppi ne su bokkum kii moo mën a ñaan doo Mouhamad Bousso balaa dëdd nga ne ko su xum kii moo mën a ñaan walla Chérif Ibrahima teg ko ci loxoom mu génn nga ne su boo nii rek la mel loo yor mu yóbbu ko yàlla ne mu ñëw laaj la nga ne ko ah tey de baal ma sikki ma lakkandoo wax bu rafet la mooy ku ne sa bos ngay tala fay boo ko doon firi mooy fekkoo ko fi mu am jàmm nga am jàmm waaye dangay ngay defal nit teraanga mu romb la ci mbedd bi problème sociaux yi niñ bare nit mën na la romb sax te du xam ne romb na la nga ne moo ne gis nga de bar barki démb rek laa ko dimbale ci courant am wala ndoxam wala dépense tey mu ngi nii duma romb nuyuwuma yàq nga lépp loo defoon nañu téye làmmiñ yi xam nga yooyu sax def def la beneen bi nag mooy di wax di yàq deru nit gor boo jot xas ko Seydi boo demee ca Laxdari Seydina Aboubacar boo demee ca muqaddima ba ca sharxa ba ba ñuy wax ne nga téye sa làmmeñ bi ci yonent bi yegsee bi muy jàngale téye làmmiñam dafa ne képp ku këpp sa xar kanam bii ca safara ëllëg mu ne sa ngóobite làmmiñ moo la fa dugal xaw ma dégg nañ li ma wax walla déet mu ne képp ku këpp sa xar kanam bii ëllëg ca jahannama mu ne na la wóor ne sa ngóo ngóobi ci làmmeñ moo la fa dugal Seydina Aboubacar ba mu déggee wax ji dafa for juróom-ñaari xeer yu yem raxas ko ba mu set log ay xeeram mu ne waa bu ma jëlee ay xeer teg ko ci kaw làmmiñ bi muy poids bi tege ci moom du tal wax musiba bu ma yàlla di dumaa ëllëg soo ñëwee di wax ak moom mu yàbbi xeer yi su farata ca jeexee mu sexaat ay xeeram booy wax mu naan la xam nga fenkat uuhu ko ta bu yàggee rek mu ne la saay ma ñëw waaye buy fen nga naan ko ha yëg nga Chérif Ibrahima li mu def tey ha ëskey mooy dollil muy wax ngay tulli muy wax ngay tulli muy wax ngay tulli ba ñeme ko nag door a dugal yow sa wax fekk ñemewu la nag du dugal waxam yooyu nañ ko wattandiku gis nga li nit ki war a am mënoo fexe ba mu ñàkk ko li nit ki war a ñàkk mënoo fexe ba mu am ko dogal yi ci loxol yàlla la nekk nañ bàyyee suñ bopp ak yàlla te yéene wante yiw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 juróomi saxaaba daanu nañ te juróom yooyu bu ñu nee Zubayru bokk ci la bokk waaye xulafa alxurafa u rachidina seydina Aboubacar seydina Omar seydina Ousmane seydina Ali saadun saidun ibnu awfin talxatun wabnu awfin ba ñuy fukk fukk yooyu keroog bi jibril ne cëpp ci kanam yonent bi ne ko sa borom nee na fukki saxaaba yii luñ defati ci kaw suuf neex na ko àjjana mooy seen fay man yàlla xoolatuma lu ma naqari ci ñoom mënatul ñoo defit lu ma metti xanaa lii honneur la neex na ba de waaye Seydina Omar xam nga nu mu def dafa jóg ne ah falaa yamanu makrallahi illa alxawmu alxaasiruun man de wóoluwuma pexem yàlla lii mën naa nekk piège ni saxaaba yi toll yàlla set ñu ñun fukk ne luñ defati neex na ko daf ñuy piège de man de buñ demoon ba bés pénc mu annoncé ca rajo ba ji ñépp di déggee ne ñëpp baal naa leen ba mu des kenn kooku fokk ma duma ko mu ne man Omar duma ko jiiñ kenn dama naan man nii la yàlla di wax ci ragal yàllam ak wattandi ko yemu ca su julliwaan gee noppi day dugg ci biir pantareem am na benn karawaas bu mu fa daan lonk summi mbubbam ba def yaramu neen ne yonent bi laa dégg mu ne xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu regle leen seen bopp balaa ngeen di dem bés ci yàlla di leen regle mu ne man de dégg naa yonent bi wax loolu kon duma toog ba bés ci yàlla di ma regle may njëkk regle sama bopp dal di toog yegg suuf ne fajar be ba tisbaar lii ak lii laa def tisbaar ba tàkkusaan lii ak lii tàkkusaan ba timis lii ak lii timis ba gee lii ak lii gee ba bi may dugg si ci fantre bi lii ak lii ah gisuma ci sax lu ñaaw waaye wóorul dal di lonki karawaas sëgg dóor boppam karawaase boppam bi yaram bi tàng jër mu ne ko waaw kañ su ma la defee nii nag balaa may dem dem bés peñ ci yàlla di ma ko def ma njëkkee ko fii seydina ali karamallahu wajha nee na bi mu génnee àddina ñi di ko sang fekk nañ mark mark yar yi ci diggi gannaawam ci ko yàlla dikk àjjana ndax dëggu ak bañ a wóolu pexem yàlla ah si sa jinge dem leen laaj ko mu ngi dëkk fii dañ ciy waxtaan bés mu ne ba mu ko laajee Serigne Cheikh nee na Serigne Cheikh woo ko doon ko yóbbu yónni benn programme jox ko enveloppe nee na mu ne ko sëriñ bi nga may ma rek ma laajaale la benn laaj balaa may dem mu ne ko ban laaj la mu ne ko man daal sama xel mi dafa jaxaso mu ne ko mu ne ko al ashru mubashiruna bil janna saxaaba yi gën a rëy yépp dégguma leen ci mu ne ko dégguma ci Hamza dégguma ci saxaaba yu mag yooyu yépp ak liñ daj mu ne daaneelu ma sax sëriñ Cheikh ne ma siise ñooñu ñooy échantillon yi waaye ña ca magasin ba yépp ca lañ bokk waaye waaye Serigne Cheikh du nit waaw du nit nee na mu ne ko siise fukk yooyu ñooy échantillon yi waaye la ca magasin ba yépp ca lañ bokk mu ne ko saxaaba yi ci des yépp ca magasin ba lañ bokk waaye fokk am ay échantillon mu ne échantillon yooyu lañuy ñuy wone waaye ñi ca magasin ba yëpp ca lañu bokk ah waaye na digg mu dolli ci mu ne ko siise dafa mel ni keroog bi yonent bi waxee ne kullu taajirin faajirin illa Ababakar mboolem commerçant yi yépp unanimité ay kàccoor lañ ba mu des Aboubacar mu ne Seydina Ousmane Seydina Omar ndax ay commerçant rek a ko wër nee na ñu dem ñibbi jóg mu ne Omar muñ ko muñ bu nu ko muñ mu bàyyi ba yonent bi toog ba ñëpp toog mu ne ko yaa rasulullahi li ñëpp noppee dinaa la ko wax mu ne ko lan la mu ne ko yow ay commerçant rek a la wër nga ne képp bépp commerçant bu mu mën a doon kàccoor la ba mu des Aboubacar loolu lañ bëgg nga lay ko mu ne yonent bi ne ko ah Omar mënuma fi nekk naan kullu taajirin faajirin illaa ababakar illaa omar illaa osmaan illa talxata illaa zubayru illa illaa mu ne ko kuy jaaye ni abubakar di jaayee di jëndee ni muy jëndee ca nga bokk mu ne échantillon di kat kon nañuy rafetante njort ci suñu biir lu kenn am na yëg ne ñépp a ko bokk bu dee jàmm ñu séddoo ko sëriñ Cheikh moo daan wax ne bànneex li muy neex neex boo ko wéetee mu lëjal la mu ne li muy neex neex boo ko wéetoo mu lëjal la mu ne waaye naqar lu métti métti boo ko partagé rek séddoo ko mu woyof kon nañuy seede wante yiw man ma toog ne Sidi Mbaye ku baax la seede li ma xam ci moom ci baax lu may wàññi lu mu may wàññi saala biige ku baax na lu mu may wàññi tafsir abdurahman ku baax la xaali ku baax la ibrahima njegéen ku baax la diw ku baax la lu mu lay wàññi waaye nit ñi boo ne diw ku baax la sax seen xol yaa ngi baax Sénégal doo fi tudd mukk nit seede ci moom mbaax dajeeg fukki nit ñépp appuyé ko boo waxee rek yow may seede mbaax sax dañ naan moom martoom la yor rek day dóor day dóor wallaay waaw jeex na waaw Cheikh mbaay baal leen màq Cheikh Mbaye mooy rakku jàll Mbaye mooy magu jàll mbaay mooy premier turandoo Serigne Cheikh Tidiane si daf daan ñëw par altine di ma seet si amoo néew na altine bu mu daawul ñëw di ma set balaay ñëw nag day jaar ci imaam Lamine Diop door a ñëw ci man bu noppee ci man dem ca imaam Moussa Guèye bés mu ñëw rek yor yet daanaka daf doon daf doon fa sëgg ne ah, yow lii nag ma yàlla daal moo aay ci jaamam rek mu ne ko nu mu aayee ci jaamam mu ne ma day jékki-jékki sa lax la suuf ngay patamtu ophtalmologue bu ne nga dem fa mu ne ba yàlla suturaal la nga ami weer di gis tuuti di xor-xori mu ne fi ngay xor-xorale di am yaakaar mu tëgg la pes say bëñ commencé di buur ngay pooseek lu ne nga dugg ca ba am bëñ yu xaw yoo mën a yéeye mu ne mu fekk la fa rek kuntaaba la mu ne déedéet sa ndigg bañ mu ne nga yor yet di cokkor cokkori ba yaakaar ne mën ngaa dem mu ne mu bëmax la nag nga yem ca ba benn yoon dootoo jox nit ku doy waar la woon ku baax moo ma wax bés mu ne ma shérif xam nga lu tax mbëkke baaxul xam nga boobu mbëkkee la gaa yi xewaloon waaw mbëkk day saa yi day mbëkke mu ne ma xam nga lu tax mbëkke baaxul ma ne ko déedéet mu ne ma boo boo yàggee mbëkk koo jug mu daw dootoo am koo mbëkk yal nañu yàlla defal sutura waaye lii dara dàqu ko man boo gisee may sawar ci jotaayu tafsir du ni ñu mel mag ñépp lay laal day tibb fii tibb fii tibb fii tibb fii ku ne gis ci sa bopp Sénégal noonu lañu war di waxtaanee réew mi laajatul ñuy taxas jëmale benn boor ndax saale bii gi mii mënoo fexe ba du gëm maam borom Touba mënut fexe ba man du gën gëm alaaji Maalik kon na noppalu ma noppalu li mu am naa ko ko yéene li ma am mu yéene ma ko parce que am na loo xam ne dangay sonal sa bopp waaye mënoo ci dara li yàlla def def na ko ba noppi sëñ li muy am am na ko kenn mënta tere mu am ko sëñ ko sa gànnaar Mbàkke ko daan wax fii ci suñ gàmm moo naa wax salaamaaleykum wa rahmatullah Chérif Ibrahima réew mi de dañ ko séddoo ba noppi ñii murit murit rek ba bés penc ñii xaadir xaadir rek ba bés penc ñii tiijaan tiijaan rek ba bés penc ñii laayeen laayeen rek ba bés penc ñii indi coow li mooy ñi mujj ñëw te amuñ fuñ installé loolu mooy wax bi su ko defee yal nañu yàlla defal sutura xaaji tafsir bég nañ ci yow yow fooy waxtaanee boo seetloo di nga gis environnement boobu ñépp ay déglu kenn du yàkkamti sa jikko la de waaye sa fédéré ñi ngay fédéré moo tax nit ñi sawar ci yow loolu yal na ko yàlla saxal yal na ko yàlla saxal ndax réew mi mag ñi loolu lañu ñu bëggoon ñoom ñépp dañ xamoon ne kenn ku ne yaa ngi am ci loo nekk waaye ngay jàppale sa moroom ca lam nekk yal nañu yàlla defal suutura ak mu mel ni yow bu fekkente ni bari nañu ci réew mi lépp dina jaar yoon wutoo daraja te yonent bay sa maam man fekke naa ci jotaay man maa fekkee ci jotaay nga ni man taalibe Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh moo ma gënal sama ay dara gii sama maam ëllëg lu muy joxe bu ko jaaralewul ci loxo El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ma jot ci man Chérif Ibrahima soxlawu ma nga ni sama mbokk yenn yi sant ay dara koo ci xamante ni lii may wax dalaa metti bu leen neexee ngeen jël seen ay dara gi man ma sant sama santu yaay juuf kon loolu kuy wut daraja doo ko wut fa tabaarakallaahu foo demit ñun dañ lay waxtaanee sa kalpe nga yor mm-hmm. man kalpe bi xaw ma lu ci ne waxee xam naa ni kalpe bi daal man xam naa ni moom du ñàkk xaalis moom yow foo dem fu ne nit ñi ñooy préparer pour jox shérif yi àddiya waaye yow foo dem fu ne yaay joxe li ngay joxe man daf ma jaaxal sax fa tabaarakallaahu kalpeem daal lay yor di rocc di joxe beneen bi nag mooy macha allahu sa dëggu sa fit loolu moo tax man ak shérif ay dara wax naa ko ci gàmmoom ma ne ko shérif ñun jàngalooñu joxooñu tariqa joxooñu turu yàlla waaye ñun ñoo la xool nga doyuñu ñu ñu ni la yaay suñu kilifa ci lii ñuy yëngu muy man muy shérif Maami boo ma ni woon tafsir bul wax billaahi wallaahi léegi duma jóg boo ni ma woon tafsir suba la conférence su euh, ñoom Kiné Njaay ma ni la waaw nga ni ma bu fa sa tànk dëgg du ma ñëw parce que neewoo ma tafsir dama laa bëgg a yilif déedéet man maa la xool ba nga doy ma te booba miinoo ma man ak shérif maa mi ñun la shérif dañ la bëgg a def kilifa ñun ñoo la ñaan pour nga doon suñu kilifa loolu kay ki la ko ñaan kon doy nga ko fa tabaarakallaahu kon nag ñun ñu ngi lay ñaanal yal la fi yàlla bàyyi te loolu yépp dara waralu ko lu dul sa jikko parce que nag ku mel ni ñun ñii yilif ñu yombul macha allah waaye yow yilif nga ñuy kilifteef goo xam ni doo ñu raay raayal di nga ñu wax dëgg te doo ñu noggatu di nga ñuy jàppale yàlla mii boroom sutura yàlla na yokk sa sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon defe naa ni mbokk yi ñépp ñu tàllal Cherif joxe ñaan bu ko defee ñaanal ñu ñun ñépp ñu raayoo ñaan yàlla fekke déwén waa bokk jom seen conférence bi defe naa ni macha allah defe naa ni ah neex na fa tabaarakallaahu guddee na waaye neex na macha allah yàlla na yàlla na biye màkka yi bari ren élection yi yàlla nañ ci dugg ci jàmm kiy gañe gañe ci jàmm te mu gën ci réew mi yàlla na ko yàlla def jërëjëf xaaji tafsir ci ndigalam ak ndigalu kilifa yu fi nekk yépp ñu bokk jàng faatiha te yéene ci nag mucc mucc le góor gi may wax yal nañu yàlla taas ci barkeem la ko yàlla defal ba muy am quatre vingt dix suba yal nañ ko am ñun ñëpp moom it yal na ci tegaat yeneen fukki at ak ñeent wala fukki at ak juróom muy cent quatorze ans bu ko ko yàlla mayee ba noppi nag mu door a seet day dem wala déet yal na ko ko yàlla defal ci barke Serigne Habib mi ko ko ñaanaloon waaye yal na ñu ko yàlla defal ñu it ci barkeem moom góor googu waaye ci barke Serigne Habib mi ko ko ñaanaloon yal na ko yàlla boole may mu ànd ak wér ak wérle ànd ak mucc ak mucc muccle tafsir Abdourahman yaag shérif maamin yal na ngeen am cent yoo xam ne dangeen di gàmm ma toog di fekkee ñun ñépp ñu toog di fekkee te cawarte gi nga ci àndal yàlla bu ko yàlla rocc mukk roofaale ci wér gu mat sëkk sixatan tamma yal na ko ci yàlla def bu jasadiya bu qalbiya ak bu ruuxiya yal na ci yàlla boole yépp defal ñu ko nag ñun ñépp ba kenn ku ne li nga bëgg ci diine bëgg ko ci tarixa bëgg ko ci mbokk yàlla may la nga mottali ko mottali ko nag ala wajhil ardi ak sago yal na ko yàlla def bismillah mm-hmm. waaw mm-hmm. njaay waaw tuddoon Koddu Gueye ak soxna Ndey Jeng Kamara waaw wa jërëjëf mu ne dafa am ñaar ñoo xam ne daanaka dañ toppante ñoom ñaar te ci mbooloo mi lañ bokkoon muy soxna Koddu Guèye ak soxna Ndey Jeng Kamara ma dolli ci keneen koo xam ne tafsir ci suñ gàmmoo gi la doon ñëw mooy Ibrahima Kan xale boobu ñu rey jam ko paaka wallahi mu ngi ci internet bi ci sikap fii la daan xadaraa ci kër gi ajjuma bii paase nijaayam yeeg frère yi sax boo moytuwul ñu ngi fi ñi sant li déedéet xale yi ëppoon njàmbaar ci xadara bi lañ ñoom ñoo fay des xam nga temps yi yëpp ñu ngi xadara ci bayaal ba ndax zawye bi ñuy defar ñoom ñoo fay mujj minuit lem basang yi fëgg ko yóbbu ko ci kër ga door a dem ñibbi yàlla xéewale woon ko nag deux cent mille francs mu ne day luwee oto def ci seen waa kër ñu ñëw ci gàmmu gi kam demoon di lu ji oto kookoo ko jaay ba mu demee di jëli oto bi ñu jam ko paaka jël portable ba ak deux cent mille yi fa la yem xaw ma jàpp nañ leen wala déet jàpp nañ leen waaw kañ alhamdulilah comme jàpp nañ leen nañ def li yoon santaane ci ñoom rek ci gàmmu gi la doon jëm si ajjuma bu jot ma seedeel leen ne Ibrahima kan fi la daan xadara mook nijaayam démb rek man maa ko waroon a jaale mu yëkkati trente mille francs jox ma ne ma maa ngi lay jaale sa doom ma ne ko sëñ bi yow man maa la war a jaale mu ne ma déet fii la daan ñëw te ñun ñoo ci ànd ñoo ci àndoon pour muy ñëw fii ñi ci des ñépp samay jarbaat lañ ne naa leen fii bu fi seen tànk jógati ba faw xale bu baax la woon mënoon a daan dooleem nag te da doon jàng boole ci waaye terewul muy daan dooleem ba dajal ba dajale deux cent mille francs uniquement pour gàmmu gi loolu rek a taxoon mu dajale ko nee na dafa bëgg jënd oto dafa bëgg louer oto bu rafet dugal ci seen waa kër ñëw ci gàmmu gi ba fajar jot ndax bu fajar jotaan bu ñuy ñibbi dañuy am problème mu oto mu ne kon day louer oto def ci seen waa kër ñëw bu gàmmu gi tasee ñuy jëlaat oto bi dem bu paree mu delloo ko borom kam doon louer oto bi moo ko jaay. ka ko doon léyee oto bi ñu dogale ko ci yoon bëccëgu ndara kàmm xaaji tafsir bëccëgu ndara kàmm moo tax li taf li xaaj tafsir wax tey farata la jàmm nañ ko ut bëccëgu ndara kàmm ñu jam ko paaka jël deux cent mille yi ak portable bi ci deux cent mille francs nga rey ci nit noonu après du mujj fen waaye nag dana mujj ci loxol yàlla de wa ilallahi turjaul umur wa ilallahi turjaul umur ku yaakaar ne rëcc nga fii doo rëcc fële te balaa ngaa dem fële it di ko gis ndax bakkan bu rey benn bakkan deful benn bakkaar bu tax ñu rey ko nga rey ko yaag yàlla kon ñu bokk ñu yéenewaale ko moom it ci ñaan gi yal na ko yàlla defal njëggal te gëm nañ ne it shahid la wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi summa yudrikhu l mawt wax waqaa ajruhu ala allah yàlla ne ku génn sa kër dara taxulaa génn lu dul man yàlla ak yonent bi mën a yeggoo fa nga doon dem nga dee ci yoon wi mu ne na la wóor ne sa yool yegg yeggsi na fi man yàlla maa yore sa pay te dinaa la dugal àjjana yàlla na ko ko yàlla defal defal ko mboolem ñiñ fi tudd ak mboolem ñiñ fi tuddul te ñuy ay jullit fi mashariqi l ardi wa magharibiha bismillah ci ndigal wa xaaji tafsir auzu billahi min alsheytan allahuma balligh sawaaba ma qara'naahu wa nuura ma talawnaahu ila ruuxi seydina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa xudafaahi wa ila arwaaxi jamii ashaabihi wa awlaadihi wa afxaadihi wa duriyaatihi wa ahli beytihi wa xulafaa'ihi raashidiina ridwaanullahi alayhim ajmain wa ila arwaaxi jamii ixwaanihi lanbiyaai wal mursaliina min ladun seydina aadama alayhi salaatu wa salaam ila seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabihim ridwanullahi alayhim ajmain niyaabatan an ibnihi wa mahbubihi wa aminihi waarisi sirrihi alqutbi almaktum abil abbas mawlana cheikh seyd ahmad tijaani radiallahu anhu wan saairi alxulafai ridwanullahi alayhim ajmain xaasatan ila ruuxi ammatika koddu géy wa ndey jeng kamara wa xaasatan ila ruuxi abdika ibrahima kan allahuma ixfir lahum warhamhum wafu anhum wa aafi anhum wa tajawaz anhum wa adxilhum jannatika naim birahmatika ya arhama arrahimin ya rabbal alamin allahuma ijalil jannata mutaqallabahum wa maswaahum bi mahdi alfadli waljuudi wa ridwani walkaram birahmatika ixfir ya rahmanu ya rahim ya xayu ya qayum li abaina wa ummahatina wa ixwaanina wa asdiqaaina wa asaatizatina wa mashaayixina wa ajdaadina wa azwaajina waxfir li jamii lmayiti almuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat sigaaran wa kibaaran fi mashaariqi al ardi wa magaaribiha allahuma ixfir lahum warhamhum waafu anhum wa aafi anhum wa tajaawaz anhum wa adxilhum jannatika naim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahuma ij'al aljannata mutaqallabahum wa maswaahum bi maxsal fadli wal juudi wal ridwaani wal karam allahuma la tahrimna ajrahum wala tuftina baadahum allahuma la tahrimna ajrahum wala tuftina baadahum allahuma la tahrimna ajrahum wala tuftina baadahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin bi xaqi qawlika alxaq fi kitaabika alaziz wa inni uizzuha bika wa zurriyataha min alsheytaani rajim fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin xasanin wa anbataha nabatan xasanan wa kaffalaha zakariya kullama daxala alayha zakariya almixraaba wajada indaha rizqa qaala ya rabbi anni hada qaalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yashaau bi gayri xisaab bismillahi irrahmani irrahim subula salaami bikum subulan mumahadatan taslukuuna biha amtan wala antum wadiata mawlana alxafiisi wa man yakun wadiata mawlana alxafiisi najaa bismillahi tariqikum arrahmaani rafiqikum arrahimu yarhamukum xaysu tuujahtum allahumma yaa kaafi yaa xafiisu yaa salaamu sallimna wa sallim man ma ana waxfazna waxfaz man ma ana wa ballighna wa balligh maa ma ana bi rahmatika yaa arhamar rahimin yaa rabbal alamin bi xaqi laa ilaha illa allahu sayiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa bi sirri allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaq naasiri alxaq bilxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون wasalaamun ala almursalin walhamdulilah